li bismillahi rahmani rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasalaatu wasalaamu wa ashrafi almursalina sayidina wa habibina muhammad salallahu alayhi wa sallam xar yeeg soppe yi ñuy topp ci jàngatu bés bii di am alxames jot fii ci RTS 2 mbégte li ñu am saa su ne biñ fi teewee waaye di am mbégte bu baax a baax bi ñu dalal suñu gan macha allah ñu gën ko xam ci Cherif Baba saw ñu ngi koy ziar bu baax a wax yaa imam di la nuyu di la wax marhaban bikum di la dalal ci plateau RTS 2 Euh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala euh, ñu ngi am mbégte ñu nit bu baax di bokk ak yéen plateau bi tey euh, di nuyu ñuy seetaan émission bi télévision bi yëpp mhm. RTS ci Sénégal ak bitim réew ak képp koo xam ne yaa ngi xool ñu ngi lay nuyu nuyu lislaam bu gën a sell di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mhm. salaam wa rahmatullahi taala kon defe naa ni jànkatu bés bi comme ni ma leen koy waxee saa su ne day dox ci xew-xew diine waaye tamit day dox ci actualité ndax xew-xew bu mën a waxat ak xew rek am na position diine te yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla da ko yónnee ngir mu régler situation yëpp kon situation bu ñu bu toll rek islam am na ci solution lii xew fan yi ku ne xam nañ ñu ngi ci campagne waaye lislaam suñu borom subhanahu wa taala jaarale ko ci bokk yonent yàlla muhammad nee na man raa minkum munkaran fal yuxayir bi yadihi fa in lam yastateex fa bi lisaanihi fa in lam yastateex fa bi qalbihi wa zalika addaaful iman kon ci ñun yéen ñi nga xam ne dañ leen di déglu macha allah yàlla dogal na ko euh, da ngeen ci am part de responsabilité looloo tax tey fii sa invitation moo ko waral tey fii ci jataay bi imam ma bëggoon nga ñëw wax askan wi ndax euh, ñaari fan yi nag euh, ku ne xam na ni dëkk bi tàng na te ñu ni neen la Sénégal ñun ñoo ko bokk kenn mënu koo xar ñaar te euh, defe naa ne lu bëri defe naa ni jaru ko yaa imaam. Hmm. Mhm. waaw soxna dañuy njëkk masaw ñi nga xam ne ñoom ñoo loru ci violence électorale yi fi am fan yëpp. Mhm. waaye di gën a yeesal appel yu ñuy lancé ci diine. Mhm. ci turi kilifa diine yu ci réew mi yëpp mhm. ak aima yu ci réew mi yëpp ak l'islam en général mhm. ndax euh, élection présidentielle politique la dégg la waaye politique damay faral di wax man toujours ni mu ngi juddu deuxième année gannaaw bi yonent bi gàddaayoo dem jógee Makka dem Medinatul Munawwara mhm. lépp luy politique buy gérer addina bi buy gérer état way la bu bu tax ñuy wax politique luy defar société mhm. yonent bi ci jumaawam jooju la juddoo mhm. euh, kon politique dafa war a rafet politique dafa war baax euh, mu bokk nag ci gëm yàlla fanweeru ponk yuy tax yàlla nangul nit gëm-gëmam mhm. muy gëm gëm yàlla croyance mhm. lu tax yàlla di ko nangul nit mhm. gëm sa réew daf ci bokk bu ñu demee bay tànn njiitu réew eh, wax dëgg yàlla képp kuy citoyen nga majeur rek dafa mel ni jamono yonent bi ñu woote xare danga nga war a taxaw xubbul watar kon nag képp kuy jóg ci loolu na nga ci jóg ak xel waaye na ci jog ak patriotisme teg ko ci règle des arts mooy nga seet candidat bu mu am parparloo dañu ne ñaar wala ñett wala juróom ñooy jongante nañ ko def ci jàmm ak salaam waaw ku jóg koo ci mën a àndal xobam sa xob kese la ci soxla leneen loo ci def ci xeex ak kuloo wala wax bu ñaaw bàkkaar dong nga ci jëlee wala loru te ittaqu fitnatan hmm. la tusibanna allazina zalamu minkum xaasa waaw loolu euh, dafa doy waar hmm. na ngeen moytu taal fitna boo xam ne bu takkee doo xam ci ban bopp lay teere hmm. nat nit dana taal fitna dee ci l'islam lu la digal mooy candidat yi voté di jongante tànnal ku la doy nga woteel ko. Mhm. waaye tànn bi aussi ni nga ko war a tànnee. Mhm. l'islam daf la ko jàngal yow jullit. duñ ko teg ci nafsu. duñ ko teg ci nafsu. Mhm. noo a tànnee kii jiite réew. ndax réew moo gën a foor juma. réew moo gën a foor cité religieuse. réew ndax lépp ci biiroom la ne. réew moo gën mooy agriculture. mooy affaire étrangère mooy lépp lépp lu bokk ci réew mi rek. njiitu réew mi mooy chef suprême de la nation. waaye imaam kon ku ñuy tànn kon responsabilité njiitum réew rëy na rëy na lool te gis nga masuliya boobu. Mhm. dafay tegu ci loosu borom. ki ñu ko war a tànn nag ki ñu war a tànn comme yàlla dogal na juróom yi la ñu tànn ci parrainage mhm. képp kuy citoyen ngay sénégalais seetal sa xaqullahi mhm. tànn ki ngay tànn li la l'islam njëkk sant mooy na am expérience su gérer réew. na nekk nit koo xam ne. du génnee ci làmmiñoom kaddu bu ñaaw na na mat njiit njiit du saaga mm-hmm. njiit du wax wax buy indi fitna mm-hmm. képp koo xam ne danga ne da soxla réew mi waroo mm-hmm. fi indi luy taal fitna waaw kon nag juróomi candidat yooyu ah wax dëggu yàlla kenn ku ci nekk aussi am na part de responsabilité ci woo nit ñi nga xam ne ñu ngi sa gannaaw woo leen ci dal woo leen ci tek woo leen ci xam nu ñuy doxalee woo leen ci loo xam ne jàmm lay doon ndax réew mi bu takkee kat moom mi ko woote sax moom ak kum ci mën a doon fitna bi mën na tegu sa bopp waaw nu ñuy tànnee njiitu réew nag mooy li ma ko waxee rek. ci mhm. diine mhm. expérience daf ci am solo. Mm, muy benn. daf ci am solo. Mhm. ñaareel ba war na nekk koo xam ne euh, réew mi yëpp seedeel na ñu bari xam nañu jikkoom ci baax. ak mm. yar ak teggin. waaw war na nekk nit koo xam ne. Ah, réew diine la nekk. Sénégal bu ñu ne quatre-vingt-dix-sept pour cent musulmans. wax dëggu yàlla lépp lu ñuy def war nañ ko teg ci diine. Mhm. te yàlla def na lu ëpp 3 pour cent yëpp daanaka ci diine la jàpp ñoom mhm. waaw waaye 97 pour cent yi da nekk ci diine l'islam. Mhm. waaw kon te démocratie la ñu woote. démocratie boobu nañ ko teg ci yoon. nit ku nekk xam nga ku nekk wax dëgg yàlla ñoom candidat yi jongante. ku ci nekk xam nga ni kële la mën sa morom ku ci man ñoom ci seen bopp xamante waaye lu fi nekk rek mooy lu ci lu garaaw ci démocratie yu bees yi. Mhm. démocratie xam nga diine ko fi indi. comme mën nañ ma rek damay yàq affaire yi. waaw non lu ci garaaw démocratie bu bees dafa ànd ak laïcité. Mm. benn toogu la. Mm. ñëpp di ko xëccoo. bu la wóoree ni kii du sa morom. Mm-hmm. di nga ne lu mu def ci lu baax di nga ko xarab. Mm-hmm. waay waay waay waay lu fi nekk ci réew mi ñëpp teg nañ ci seen bët. Mm-hmm. fitna amu fi. amu fi benn coono bu nit ñi di wax. Mhm. bu ñu waxee ñu naan sëriñ si dafa am ku ñu àndal wala dañu ànd ak président Macky Sall. Mhm. sëriñ si waruñu voté. Mhm. sëriñ si waruñu wax ci politique mais sëriñ sëriñ di citoyen. sëriñ di citoyen comme tout le monde. sëriñ au contraire imam bi ak sëriñ bi. ñoom ñoo war a jiitu ñëpp ci politique bi. parce que ah. politique mooy luy defar société. mooy luy régler société ku war a kan moo war a nekk le premier réparateur ci société du imam wala wala sëriñ bi. Mhm. ñoom ñoo gën a jege population yi. Mhm. imam bi chaque ajjuma am na contact direct ak ak ak ak mbooloo mi. chaque waxtu julli juróom yëpp mu ngi daa jak jàkkaarloog mbooloo. Mhm. heure bu nekk la war a nekk di wax ak ñoom kon imam porteur de voix la ci biir askan bi. sëriñ si ainsi de suite. Mhm. kon ñoom kenn waru leen a waruñu des gannaaw ci politique. yow looloo tax am nañu droit tànn. dogguma la sax loolu moo waral sa teewaayu. tey moo waral suma teewaay ndax yow porteur de voix nga. waaw kañ te am na ñu lay bàyyi xel. voilà jombul boo jàllalee sa message ku ne eh, di nga xoolaat sa bopp di nga indiwaat dal ci suñu ci suñu biir. wallaay loolu mhm. loolu dong la message boobu kenn ku nekk ci ñun sénégalais yi. Mhm. na xam ni kenn ku ne am nga droit tànn ku la neex ànd ak moom man imam am naa <laughs> candidat bu ma waaw citoyen bu ne am na candidat bu mu àndal parce que l'islam moo la ko sant mhm. bu amoo droit toog bu ñuy dem bay tànn loo xam ne décision la c'est décisif mhm. pour réew mi mhm. képp kuy citoyen te nga majeur war nga jóg taxaw te boo ci banqué sa loxo sa loxo nga nga def erreur parce que man raa minkum munkaran bi nga tijjee yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man képp ku gis lu ñaaw lu ñaaw na ko faj ak sa loxo mhm. soo ko mënul mhm. ak ak sa lamiñ mooy mhm. nga wax ci mooy li ñuy def tey ndax réew dafa am bokkatut ak jamono yu njëkk yi nekkuñu aussi ci réew moo xam ne charia moo fi dox waaye dañu ne ku gis lu mel nii ñun fu ñu toll tey borom xam-xamu réew yéen wax lañ mooy wax lañu war a féete yee nit ñi ci nu ñu war a doxale waaw te waaye réew mi luñ fi woote surtout kujje bi man damay toog léeg-léeg di dëgg baat yu ñaaw yoo xam ne mel ni réew mi dafa nekk ci état de guerre te Sénégal fii képp ñun fu ne la ñuy dugg gisuñ fi benn fitna bu fi takk lu dul fitna yu ñu sos créé ko mhm. gouvernement baa ngi téye réew mi ci sécurité bu doy sëkk mhm. xale yu fi taal fitna bañ fi faatu mhm. ñu fitna lañ fi lu ñu créé la kon ñu fitna bu ñu créé la loolu imam dafay dañuy delluwaat ci kër yi ndax responsabilité la ñuy wax voilà ci parent yi ci parents yi ci ndey yi ci baay yi évidemment ndax man du ma jur sama njaboot war a am ci ñoom baat ñu lànk sama baat di déggal keneen ba fitna bi judd. loolu responsabilité bi nga wax noonu. Mhm. partagé xam nga responsabilité. c'est partagé voilà mhm. c'est mooy média yi. Mhm. war nañu di wax lu baax. ak koo ci mën andal bu ñëwee di la indil information wala nga nar a divulguer loo xam ne lii day yàq wala du dëgg ay sos la. warut. xam nga man imam bañu ma parce que chef de famille nga baal ma xajaarama. borom kër bu ne ci jamono yi ñu toll nii. Mhm. bu dee da nga am ay doom yu majeur. Mhm. ay ponkalu góor ak i jigéen. Mhm. war leen woo waxtaan ak ñoom ci naka la ñu war a wotee. ci naka la ñu war a tànnee candidat bi ñu war a woteel. waaye waroo ko forcer ne ko woteel kii. woteelal diw déedéet da nga ko war a wax nu mu war a kan la war a woteel. bu ñu waree tànn na kan la ñu war a woteel réew mi ki fi jiite réew mi juróom-ñaari at. sept mu nekk ko président chef de l' gisuñu fi bal bu tàkk mhm. gisuñu fi dara lu yàqu mhm. lu ñuy wax ni nit ñi dañu xiif ñun ci àll bi lañ dëkk gisuñu fi tus ah, imaam yaa ngi far nag non faruma damay wax dëgg rek <laughs> parce que réew bu nekkee buñ doo gis lu weex mhm. l'islam daf ko tere soo toogee gis lu weex nga ne lu ñuul la danga nga fen lu yàlla gën a bañ ci baakaar yi mooy fen inna allaha la yuhibbul mukazibin yàlla bëggul ab fenkat fenkat warul jiite kenn réew mi dara benn fitna amu fi fitna yuñ fi gis yëpp dañ ko fi créer mhm. te lu ñaaw ci politique see Sénégal daf ci bëre ñoo xam ne dañuy victimiser seen bopp mhm. créer mbon ba pare ne lan dañ ma ko tooñ dañ ma ko def mhm. loolu musiba la kooku mérité wul jiite sax entreprise bu ndaw GIE loolu rafetul maa ngi ñaan politiciens yëpp muy président de la république moom mi yàlla jël réew mi teg ko ci loosom fekk ñuy dem élection nag ak képp koo xam ne tey mu candidat la ak ñu dul candidat yi nekk ci kujje gi mhm. na ñëpp xam ni réew mi ñëpp ko bokk mhm. ku fi yàlla tekkit responsabilité ba nga xam ni yow tey nga jiite réew mi na nga xam ni it responsabilité boobu bu yomal xiyaamee di nga layoog dala koy laaj di nga layoog quatorze millions xaw ma quinze millions de sénégalais kenn ku ne di nga layoog moom mhm. par kenn te durée boobu dina ëpp junne ak nga taxaw ko doo toog loolu musiba la. kon imaam ñoom dafa mel ne euh, comprendre ñu. ëllëg li leen di xaar bu ñu xamoon lu ñuy xëccoo danañ daw dellu gannaaw. Mhm. waaw man nag wax dëgg yàlla ñee naa ki fi nekk. ndax mhm. musuma ko dégg mu wax lu mhm. saaga. nu mu yoree réew mi rafet na. émergence dégg la puus réew mi ndax ay tukki lañu. tukki kat lañu amul réew mu ñu tegul tànk. fi mu jëlee réew mi ak fi mu ko indi tey. ah kuy tukki kat ngay dem di ñëw. boo ku fi gëj tuuti nekk bitim réew sax boo fi tegee tànk nga xam ne kii liggéeykat imaam yaa ngi far fi jàng dañuy wax dëgg rek jàngatu bés lañ wax dëgg dañuy jàngat <laughs> waaw jàngatu bés bi lañ ne mais nag dañuy wax dëgg aussi dañuy jàngat waaw li am foog nga wax ko waaw xam nga nga gis mooy li ma la doon wax rek nga mhm. gis lu weex ne lu ñuul la baakaar la mhm. ci diine baakaar la nangu mhm. nga ko wala nangu woo ko dëgg la parce que yàlla bëggul bëggul ku kuy xarab bokkul ci jikko jullit jullit dafa war a gis lu rafet mu nangu ko kenn waxut ni ñu ne ci kujje gi baaxuñu waaye euh, dañuy wax lu fi am rek. Mhm. parce que bu ñu naree indi aussi loo xam ne lu ñuy wax non lieu lu amul ci réew mi. Mhm. ñu ne lii daf fi am te te dool du dëgg. Mhm. te ñun ñu ne ñoo xam ne gënuñ ñu jege ñoom population yi. ñoo leen gën a jege population yi téeméeri yoon. bokkut sax. ndax ay nit yoo xam ne ay junne nit topp sa gannaaw. loo leen wax ñu def ko. te nga teg ko ci diine. gëm-gëm boobu bokkut ak ñoom lu ñu leen toppee. te ku ne xam nañu Sénégal ku ne am nga pas-pas. am nga euh, man damay faral di wax bañu ma far mais par parloo laay bañ. par parloo ndax far moom ku ne am nga droit far. ndax mm-hmm. yàlla moo njëkk a faral Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon gars yi faw nga am ci koo xam ni moom nga tànn. mais par parloo la ñuy bañ. mooy lu mu métti métti na nga seedeel nit ki jikkoom rek te yàlla rek tax. Mm-hmm. looloo war a tey jii ñu fas yéene jàngat loolu ndax Sénégal gàll la goo xam ni maam Dabax Malick da ko doon wax bu suuxee ñun ñëpp la suuxal kon nag ñun ñi ñëpp ñun ñi di wax ñun ñi ci biir kër yi du ñu seetaan ñu koy suuxal ndax ñun fii lañ dëkk amuñu feneen mm-hmm. moo waral tey fii sa jotaay message bu porté ci way jur yi waaye ci ñi nga xam ne ñooy laaj réew mi waaye ñu xamaat ni ñoom am na beneen responsabilité bi leen di xaar si seen kanam mu boroom ndax kulukum raahin wa kulukum ras mas'ulun an rayyatihi imaam loolu garaaw la garaaw na de mm-hmm. xam nga li nga mujj wax léegi mm-hmm. yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa bu wér la mu ne kullukum raain ee yéen ee éducateurs yi yéen mm. ñuy chef de famille mm-hmm. kenn ku ne ci yenn raa ab sàmm nga mm-hmm. wa kullu raa te sàmm gu ne an raayatihi mm-hmm. responsabilité li muy sàmm ci loxoom lañ ko teg te bu yowmal qiyaamee danañ ko ko laaj moo tax kenn ku ne ci ñun di chef de famille di chef fi nga mën a doon nekk fa njiit wala yilif mbooloo am nga responsabilité yee ndax lii kat bu doon jamono yonent bi ab xare lañ koy tuddee mhm. te ku ci bokkut yàlla nga am bàkkaar mhm. dafa mel ni tey yonent bi doon dund ñu woote xare mhm. ku ñëwut ci xare bi gëmoo yàlla te nga man ko te dara jotu la amoo ngant bu la ko tere taxaw boo ko deful rek am nga bàkkaar kon li xew ci réew mi faw ñu wax responsabilité la wax bi dafa war a commencer ci chef de famille fitna bu bu xale buñ fi bëgg a sos nar ko fi taal képp ku ko fi def al fitnatu naima mm. laana allahu man ayqazaha mm-hmm. yàlla nee na fitna luy nelaw la man yàlla rëbb naa képp ku ko yee mm-hmm. waaw kon ku ne dama soxla njiitu réew yow mii sénégalais maa ngi koy man ngi ciy profité di appel jeunesse bi surtout jeunesse bi parce que mag kenn du ko nax ci lu bon mm-hmm. xale suñu njaboot gi suñu doom yi suñu jeunes yi góor jigéen képp ku la woo ci fitna xamal ni kooku sa noon la ku la bëgg a rey la mhm. xamal ni kooku yéenewu la dund yéenewu la lu baax mhm. ndax mën nga ci dee sa njaboot wala sa mbokk perte wala yow nga yàqu ci wala nga lafañ ci wala nga patt ci mhm. képp ku la ne kaay taali pono bañal parce que pono bi ngay taal mën nga ci takk képp ku la ne demal xeexi bañal parce que mun nga ci dee mën nañ ci dàmm sa bëñ moom mi ko mi la koy sant lu tax defu ji ko dama bëgg réew mi ba nga puus ay nit ci fitna yal nañ ci moo tax ñu ngi ñaan candidat yi yëpp mhm. képp ku ne loolu ne sa xel te nga ne woon sa candidat la mhm. bu dee gëm nga yàlla retiré wul parce que boo ko defut boo deewee safara nga jëm mhm. képp kuy woo askan ci lu bon charia moo la njëkk a te sa condamnation mooy dafa mel ni da nga pousse askan bi yëpp ci mbon ku pousse askan bi ci mbon charia daf ko war a parce que yaa ngi yàq askan defaroo waaw loolu la ñuy wax nit ak nite. Mhm. xam nga nite nit ñun ñëpp nit lañ. Mhm. mais fu nit ñi rawante mooy nite. ci jëfandikoo suñu xel lu baax. Mhm. jëfandikoo xel di def lu baax. exemple Macky Sall yéeg na ba jël réew mi fii mais kenn musu ko fi dégg ci lu bon. musuñ ko gis ci fitna musuñ ko gis mu saaga. al mulku lillah. tuutil mulka man tasha. waaw yàlla mooy joxe nguur. nguur kenn du ko xëccu ba jot ko mhm. du ay débaade ak ay alal ak xarfa kuufa ak pexe bu bëre wala bëre milliard mhm. du fal kenn wallaahi nguur bi diw la bu ko yàlla taful sa jë di nga dund ba dee mhm. lu ne di nga ci dugg te doo ko jot wallaahi kon na ñëpp teey te rafetal ko rafetal ko. Mhm. ku yàlla namm ci yow pour falu. Mhm. da nga falu. ku yàlla nammut ci yow doo falu doo falu fen mhm. ku fi nit ku bon sant demal def sacrifice reyal nit wala defal lu bon di falu dafay fen fen yu tooy xëpp. nguur alalu yàlla la. wax naa ko ci tele bi plusieurs fois. ñaar ci kaw suuf yàllaa koy fal. ñaar mooy mooy xutbu zamaan. ak buuru réew. njiitu réew muy buur wala njiitu réew mhm. ak xutbu zamaan mhm. ñaari martaba yooyu kese kese la wax de mhm. la yàlla di tapé direct sans intermédiaire lu dul ñaar yooyu ku bépp bépp martaba ci kaw suuf yàlla dafa am intermédiaire mën na am intermédiaire bu koy jox doomu aadama na ko jaarale si waaw kañ waaye nag ba lépp aussi mu ngi dellu ni lan al lillah ni yàlla moom moom nguur yutihi man yasha moo koy jox kim ku ko soob ku ko soob rek mu jox la ko ku ko soobul wallahi nañ laaj ñu bëre président Moustapha Niass. Mhm. ku ko ëppoon alal ci réew mi da ci borom alal yi la bokk. Mhm. ci candidat yi ñëpp xam nañ loolu ci réew mi. Mhm. Bennoo Siggil Sénégal 2011 2012 2000 ñaata at mu ngi yoon ci kujje gi di xeex. ndax mus na fi fallu nekk buur. campagne électorale yi ma fi seetlu boobu man duggumoon ci politique. hélicoptère sa jënd na ko. ñeneen ñi yor ay oto yu ndaw. yàlla tappee Macky Sall. loolu jàngat la. Mm-hmm. képp ku ne ci réew mi na nga jàng loolu ba mu dofloo kenn. jamono te gis nit falu rek ne man it mën naa falu. Mm-hmm. jéemal naam. Mm-hmm. yàlla bëgg na kuy jéem. waaye nguur yàllaa koy joxe. bu mu la jaral def lu bon. bu mu la jaral rey nit. bu mu la jaral saaga. bu mu la jaral ñaawoo ak doomu aadama. ndax li ngay yóotu moo gën a gaaw ci dug ci dugal nit safara. safara muy nguur nguur. képp ku ko yàlla def ci yow. day jël jikko benn jikko buñ tuddee beew teg ko sa xol. bés boo beewee rek safara mooy sa kër. Mhm. boo booy faatu di dem safara. yow ak koo mën a doon ak buur bu mu mën a doon nag. Mhm. amul sëtu yonent amul sëtu ma sàmba ak ma demba. Mhm. buur képp ku ko yootu ba mu tegu sa loxo beew taxaw na sa wet. boo yëg gisee sa bopp ba beew boo deewee safara nga jëm. looloo dal firaw na. waaw moo dal firaw na. moo dal firaw na mu dem ba ni ana rabbukumul aala ana rabbukumul aala dem ba gis nguuram mu ne man may benn yàlla ci kaw suuf ku yàlla ma la. tabax sax pyramide ne damay yéeg ci kaw flèche borom bi rey ko yow Moussa da nga ma bëgg a yab mhm. may woote yàlla sa yàlla bi naan mooy yàlla dinaa ko rey wan la ni du tus mhm. pyramide nekk cent cinq mètres sept mille ans ci gannaaw mhm. mu tabax lu bâtiment boo xam ne cent cinq mètres la ci kaw yéeg ci catu pyramide bi jël ay flèche di sànni ci asamaan bi yàlla tuur deret mu ne Moussa rey naa sa yàlla tey suñu borom moo mën a jayaate moo mën loolu mooy beew yàlla ci yàlla musal kon candidat yi ma gis nii am na ci ñu faloogul ba pare ñuy wane ay beew am na ku dem ba yàlla du fale buur mhm. ci candidat yi mhm. erreur bu rëy boobu bu ko tuubul bu ko yàlla jàppee mhm. dina rëccu waxam jooju fu mu ko doon wax imaam ñu teg foofu ba tey ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal ñu ngi ñaan ñëpp daal lu ñuy lancé mooy na askan bi yëpp dem ci jàmm ci foofu laay ñëw sax élection la démocratie la jëlal sa kart nga dem sànnil ku la doy ku yàlla di tànn tànn na ko bu yàgg te kenn mënu ci dara ku fi tiim kenn ci candidat yi ne ko maa lay fal wax nga wax ju dul dégg mhm. te yàlla bëggul kuy wax lu dul dégg mhm. yàlla bëggul fenkat mhm. yàlla kese loolu xamalu ko kenn ixtisaas elmul xayb la foofu la ko charia ah, kenn du dugg ci 18 ans ixtisaas elmul xayb boo demee ci téere tawhid yi dañ la ne laa yalamuhu illa allah ah, ñu ne domaine privé yàlla yàlla mayul benn mu dugg ci laa yalamuhu illa allah domaine privé yàlla la luy xew suba ma ne maandul maandul yàlla seq ko ak benn jaam mhm. yonent yàlla Muhammad day moo tax ñu bind six mille six cent soixante six créatures yi dund ci kaw suuf mhm. mbindee fi juróom-benni junne lañu ak juróom-benni téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mhm. ñoom ñëpp yonent bi tax ñu bind leen xamaluñ ko woon ëllëg rasulullah musul toog ak sahaba yi naan leen ëllëg lii mooy xew te moom lu mu wax yàllaa ko ko wax lu mu yàllaa ko ko wax loolu ixtisaas elmul xayb bi moo ko jàngale ne loolu bu leen ci dugg mm-hmm. ëllëg ëllëgu yàlla la mm-hmm. sabab lul yàlla fekk si la mm-hmm. kon jullit dafa war a gëm yàlla jullit dafa am nu mu war a doxale te réew mi réew jullit la réewu jàmm la du réewu fitna ñu fi taal fitna gis nañu ñaata xale ñoo ci dee lu ko fi jar lu ko fi jar mhm. dara jaru ko fi ah, imaam ñu teg foofu suñu loxo defe naa ni ba tey laataa waxtu wi jeex ndax ku ne xam ne ne waxtu wi dafa xaw a tënku waaye ba lay jeex rek mhm. ah, ñi ngi ñi ngi ba léegi ci suñu responsabilité ah, ndax yow mi nga xam ne yaay woote ni dama bëgg a nekk njiitum réew mhm. am na ay promesse yoo dig sa xeet sa askan am na loo leen dikk ban message ngay jox njiitu réew mi taxaw wala ñiy wut instant yii nii ni man day suma faloo dinaa def lii ndax ñoom ñi ngi bàyyi xel ñoom tamit li nga xamante ni benn pacte boo xamante ni ñoo ko ñoo ko signé ak seen ak seen ak seen société. waaw xam nga xajaarama. Mhm. digee ci diine. Mhm. dig naa lii askan bi. Mhm. wala dig naa lii suma morom rawatina askan bi. parce que askan bi 15 millions sénégalais. nga tiim leen ne leen dig naa leen lii suma faloo danaa ko def. nga falu defoo ko. man maa ne boo deewee safara nga jëm boo ko defa réparé wul balaa ngay dee. Hmm? parce que looloo tax mu sànni la xorobam ba ñu fal la. programme président bu fi falu nga créer sa programme nga falu ne programme bi defatuma ko maa waxoon waxeet mhm. teggi nga charte diine mhm. te ku teggi charte diine diine dal sa kaw mhm. képp ku ci taxaw di wax déjà candidat kuy bokk na ci charte yu ñu koy créer critères yu ñu koy fale ñëw ci critères yi critères yooyu mooy na am programme boo xam ne dina doy askan bi nga nga teg ko ci kanamu askan bi mais tey lu ëpp ci ñuy kan candidat yi fii ñuy wër di ànd dañuy wër rek di wax njiitu réew mi nangam chaise bi mu toog baaxul dëkk bi dafa lëndëm nangam ma ma sàmba ma demb ay wax yu ñaaw nañ ñu wax programme loo xam ne dina yóbbu réew mi ci kanam lu mel ni plan Sénégal émergent imaam nee naa la bu fi bu bu bu politique bu fi politique xam nga programme la bu fi campagne dañu ne dañu ne programme. mais gars yi imaam ngi campagne ci sama ci sama jàngatu bi tamit. déet man lu ma xam ci loolu lay wax xam nga man lu ma xam mooy. citoyen la simple. imaam la. damay seetlu. réew mi kat gis naa ni fii am na fi lu ñuy wax PUDC. Mhm. PUDC mooy programme urgence de développement communautaire ma dem àll bi yëpp man su may taalibe yëpp ci àll bi lañ. man sama imam dafa branché de ma dugg ci àll bi gis ay forage yu bees. ci mhm. suñuy village yoo xam ne. Mhm. dañu daan rooti 7 kilomètres. ñu defaral leen forage ak courant ñu defaral leen mais loolu mooy programme ñun loolu lañ doon ut ci askan bi depuis Senghor ñu ngi dund ci réew mi doon seetlu lu mu daan doxalee ñu gis programme boo xam ne dafa dafa laal. base bi dafa laal laal village yu ci réew mi yépp mais ñu ne nag lii lañ doon ut lii la ñu bëgg pro ku ñu fi indil programme bu baax ñu ñu jàppale la mhm. mais programme bi ñu fi gis muy programme yoonu yoonu yokkute émergence Sénégal plan PSE baax na de ñeneen ñi ku ci am bu baax it nit ñi jàppale la mhm. mais bu ñu fi nekk di saaga loolu critères yu ñuy utee mooy na waa ji nekk nit ku baax na nekk ku am expérience nga ne lan géré naa réew nekk naa DG nekk naa ministre nekk naa ministre de l'intérieur nekk naa premier ministre euh, jaar naa ci jaar jaar boo xam ne xam naa expérience wu réew. Mhm. waaye koo xam ne musul jiit jiite ministère. Mhm. musul nekk borom xam-xam ci réew xamul du homme d'état waruñ ko fal. Mhm. boo ko falee mu yóbbu réew mi mu def faxastalu fu ñu jëm. moo l'islam critère am yooyu dañ ko war a respecté. xam nga nga dem jël kenn exemple bu ma la ciy jox mooy tey ñuy xëccoo dawal avion. kii nekk pilote man nekkuma pilote. jànguma nu ñu dawale avion nga jox ma avion bi ne naa ko dawal dama ni su ma fa duggee rey ay bakkan mhm. rey suma bopp mhm. yal nañ ci yàlla musal mhm. kon critères yooyu nañ ko respecté askan bi na ko xam ku ñuy fal na nekk koo xam ne ku suur la na nekk koo xam ne du falu di sàcc suñu alal na nekk koo xam ne am na expérience su gérer réew ba nga xam ne bu faloo mu indil ñu fi loo xam ne day defar jumtuwaayu réew mi yëpp dina ko soppi mm-hmm. def fi loo xam ne day askan bi yëpp ci gis bopp ci defar mm-hmm. ilaa Touba bi du du du du du njëriñu askan imam tamit bu campagne ci sama plateau non du campagne ah. dama nekk di wax rek lu am ah. makisal Sall musuma may dërëm wallahi al azim mm. Mm. ñaar dërëmu malien makisal Sall musuma ko may man yàllaa ma yàlla laa yaakaar mm-hmm. mais damay wax dëgg keneen ku fi fallu it noonu. Mhm. mais Ablaye wat man dama ko dama kontaanoon ci ay teg yu mu doon teg fii ay jalon. Mhm. amoon na ay jalon yu important yu mu fi teg. Mhm. autoroute bi ma moo osé def ko. wallaay aéroport Blaise Diagne moo osé teg chantier bi. mais état continuité la. continuité la. waaw kii aussi bi mu ñëwee mu def loolu mais ñun ne fii laa wax tey di xëccoo. nañ ñu wax lu dugg ci suñu bopp. te ñu bàyyi wax yu ñaaw. bu fi jógee tamit keneen keneen ku ñëwaat day continuer tamit parce que dama gis ñoo xam wax yu ñaaw rek. Mhm. ñun dañuy mhm. mhm. nañ ko moytu parce que day pousse xale yi ci violence. te lépp luy pousse nit ci violence ci réew. réew ñëpp war a xëy di dox ci jàmm di wax jàmm xam nga xajaaram. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne l'islam ñett la ñett. xam nga ñett yu gàtt yooyu. ñett yu gàtt nee na loolu mooy diine lépp ku ko rafetal rek am nga ndam ci yàlla mhm. waaye ku ko ñaawalit jàppal ni yan torox nga ci sa kanamu borom keroog yowmal qiyaam mhm. ñu ne ko mooy lan mu ne al iman bil qalb mooy gëm yàlla ci xol la ne mhm. mais gëm yàlla nu ko nit di xamee ci doomi aadama comportement la ñaareel ba déglul de mu ne al amalu bil jawaarih mooy comportement bi lépp looy def rek nga wane ci gëm yàlla ak nite ak rafetal addina loolu la rek ak mbaax loolu loolu mooy al amalu bil jawaarih mooy ngay nga baax ngay rafetal sa comportement ku la gis nga yiw mu mu naw la ci sa ci say jëf ak sa comportement uh-huh. déglul de bale xam nga mooy gëm yàlla uh-huh. ñaareel ba mooy lii comportement uh-huh. mu ne ñetteel ba mooy al al al al amalu bil jawaarih wa nutqu bil lisaan <laughs> tee a làmmiñ tee bi du tee a làmmiñ de uh. lu muy firi a nutqu lisaan mooy heure boo ubbee sa gémmiñ na wax lu baax lu jëriñ nit yonent bi sax wax na ko feneen nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul li yasmut mm-hmm. mm-hmm. man de waxuma fi lu ñaaw mm-hmm. képp ku ubbi lammiñoom it di wax te ngay jullit fexeel boo ubbee sa lammiñ di wax nga wax loo xam ne day jëriñ nit day nekk lu baax lu yàlla di gërëm waaye sa lammiñ di wax loo xam ne nit mën na ci dee wala day puus nit ci violence yal na ci yàlla yal nañ ci yàlla musal jërëjëf man lii lay woote lii moo nekk loo xam ne bu ma sañoon jeunesse bi ñu xammee bu leen kenn nax ñu xam-xàmmee xam nga démocratie bu ëpp baaxul ci réew mm-hmm. démocratie bu ëpp mooy ku ku mu neex nga taxaw saaga buur mm-hmm. te kenn du la def dara ku mu neex nga fen fen bu tooy xëpp ga ko ci média yi yépp ñëpp gëm ni lu am la te amul te mujj fenn kooku bu nekkoon ci dëkku charia xam naa xamoo yoon dañ ko war a rey mm-hmm. dañ ko war a dóor ba mu dee juróom-ñaar fukki yar lañ ko war a dóor yaru yoon. waaye nekkuñu ci ci saaxa réew mi. waaye Sénégal dëkku layit la. laïcité boobu moo garaaw nag moo ñu pousse ci musiba yu ñu nekkee tey. Mhm. soo gisee tey problème yi bëre ak fen yu bëre ak yu ñaawteef yi nga dégg ci dëkk bi yépp laïcité bi kese la du leneen nag laïcité mooy euh, lu ma neex wax lu ma neex def. indépendance totale indépendance totale. Mhm. nga tuddee ko démocratie. Mhm. du démocratie de. démocratie dafa war a am limite. Mm-hmm. démocratie mooy mbaax. Mm-hmm. démocratie ci l'islam mm-hmm. mooy libéral. amal liberté d'expression. kenn du la forcer ci dara bu la kenn forcer ci dara. mais lépp looy def na tegu ci lu yàlla gërëm. loolu mooy démocratie bul par parloo. na tegu ci lu yàlla gërëm rek. lu mu tere bay ko lu mu dig lu mu digle defal. loolu mooy démocratie. macha allah eh, jàngatu bés bi moom tey moom campagne la waaye ba tey baax na. non du du campagne <laughs> yee askan bi la parce que. porteur de pouvoir uh-huh. fu mu toog ci biir mbooloo koo xam ne yàlla nee na yonent nee na mooy sa liggéey uh-huh. danga war wax nit ñi lu leen jëriñ uh-huh. bul toog ci biir média wala nga toog ci biir mbooloo di wax loo xam ne day yàq yanañ ci yàlla musal jërëjëf waxuma ko nag li ma la wax fi lu am la waaw waxuma fi dara pour yàq ñëpp wax loo xam ne luy defar la jërëjëf ci suma tuur ak tuuri imaamu réew mi yëpp ak tuuri borom nit kër diine yëpp ci réew mi nañ bokk def wax luy defar bu kenn gis ñaar dërëm yuñ la jox nga toog ci télé wala nga toog ci ay média di wax loo xam ne yàlla gërëmu ko mhm. yal nañ ci yàlla musal jazakallahu xayran may am mbégte doon dalale imam Baba Sow ñu gën ko xam ci Chérif maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbokk yi ñuy seetaan ci RTS da jàngatu bés bi comme ni ma leen koy waxee saa su nekk rek day dox ci actualité waaye boo gisee ñuy dugg ci actualité diine l'islam mooy diine ji ñu tënk te xew-xew bu nekk rek am na position bu la l'islam wax na nga ko jël waaye lislaam am na comportement bu mu la tegal boo war a comporté woo kon jàngatu bés baa ngoog euh, di leen dig dajee beneen jotaay euh, di nuyu xarit yeeg soppe yëpp waa axir daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin